di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen wax jumaa mubarak Pape Talis mooy sa buur. mooy sama buur. tey fan nga génne tey Cheikh Ahmed Kebe sama doomu ndey moo ma génne ci mbaxane awsa bi ma dem ba Nigéria rek di jaar bu baax a baax nag sama mbokk taalibe bàyyi ñas yi di leen euh, ziar bu baax di ñaanal Mambaay borom yokk ay leeram te taas ñu ci barke. te da ngaa soppi doxalin de Assane Waala nuyu naa la. ne Mbacke fay naa la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ak yéen pour indi leen gën a fas ci yéen kaay lamb ji. vendredi 23 avril 2021 ci Leewtoo point net la dooree ak xibaaru lamb lam xam ne nag mooy kii suñu papa Gaston Mbengue ginnaaw bi mu taxalee Balla Gaye numéro 2. ak Boy Niang numéro 2. Hmm. dafa ne damay doolu cere yokk ñeex. daal ciy hmm. teg ki nga xamante ne ni mooy Alioune Seye numéro 2 ak Issa Pouye Mbaye Babacar. ba léegi doyalagul moom euh, Père Gaston le Don de la ren ba léegi doyalagul ci combat yi nga xamante ne bii moom lay taxawal lay waral mu taxawal combat Issa yi mi nga xam ne gëj nañ koo gis trop. ak Aliou Seye di xale ba nga xamante ne bii étoile montante la mi ngi ci yoon di yéeg mu nekk combat ba nga xamante ne bii expérience la naro doon day Mbàkke ak jeunesse loolu Leewtoo point net moo xëy ko asaf dëgg la euh, Mbaye Babacar Gaston moo defee noonu démb la woo ak euh, Aliou Seye ci këram euh, signé loo leen benn contrat loolu nag Gaston da ko def après bi mu tëggee six combats yoo xam ne nii déjà ficelé na ko combat Lac de Guiers de moo ko tëggoon Modou Anta moo ko tëggoon Balla Gaye 2 moo ko tëgg Forza Pakala Sa Thiès Moussa Ndoye Balla Gaye Boy mu teg ci démb kii di Alioune Seye euh, de ak euh, Issa Pouye loolu mu nekk sept combats yoo xam ne nii retour Gaston bi tëggal na ko après bi mu euh, signé retouram ci làmb ci lan la fi bàyyil gars presque bàyyiwu fi dara. ma nga noonu mbaalam bu bu rëy la yor rek di mbaal ak di yóbbu ay suñu papa suñu papa loolu ñu naral. ca noonu nag journal suñu lamb ba mu xëyee ci xëtam bu njëkk après huit ans d' absence kii di Kayma ba ca Caaro yi Isaapu yi. gëj a ñëw ci làmb ji nee nañ papa Gaston nag da koo ressuscité daal di koy dundalaat Mbaye Babacar. gannaaw ba mu toogee juróom-ñetti at Ndeye Mbacke jësig bale nekk fële ca Caaro yi gisuñu ko fenn gisuñu ko mu bëree gisuñu ko ci lamb ji xamuñu ci lan la nekk kii di Gaston Mbengue nag da koo dekkilaat andiwaat ko tëggal ko combat ba nga xam ne combat bu neex la digganteem ak Aliou Seyde dëgg la Mbaye Babacar noonu la ko journal suñu lamb waxee nee na huit ans d' absence Issa Pouye ressuscité par Gaston Mbengue nee na Issa Pouye euh, juróom-ñetti at la toog euh, bëreewul kon Gaston daf ko dundalaat ndax dernier combat Issa Pouye mi ngi ko amoon contre Rock Mbalax le 2 juin 2013 depuis boobu amaatugul combat mais Issa nee na li tax daawul am combat mooy que ne adversaire am yi dañ ko doon ragal dañ ko tapetoon looloo tax depuis boobu mënul am combat. ginnaaw ba combat ba taxawee bàq ba jëpp lay leer leer Alioune Seye numéro 2 ak Issa yi ku ci nekk yaa ngi commencé sànni sa morom ay trac Mbaye Babacar. waaw loolu mooy loolu mooy sarm combat bi ndax ku ci nekk yëkkati nga sa ay première kàddu jokkalante ko ak say sa sa morom mu mel ni Issa yi li mu njëkk a wax mooy bi ñu bi ñu signé ba pare li mu njëkk a wax mooy Alioune Seye jàppal ne dinaa la jàngalaat bëri. dëgg la ndax. Mhm. Euh, ña doon bëreel ak man mii bokkuñu nee na ko Alioune Seye kuy wër ku mën a bëre boo dajeeg Issa Pouye da ngay dëpp ndax bëri ci man la yem ci man la ci man la commencé ci man la jeexe wante Aliou Seye daf koo tontu Assane daf koo ne Issa fi nga dal baaxul man du ma ñeexum ñebbe kenn loolu la ko tontu. dëgg la Mbaye Babacar signature bi mi ngi am démb ci kër Gaston bi nekk euh, Maris waaye au lieu que Gaston teewee ko daf ko jox euh, doomam ji di makankan mu teewee euh, signature bi signature bi également Matar Ndiaye di manager u Issa teewee ne ko ak Abdoulahad Ndiaye di manager u kii di Alioune Seyde mais après signature bi ñaari mbëri ku nekk àdduna ci Issa Pouye nee ne je vais apprendre à la lutte à Alioune Seyde nee dina jàngal bëre Aliou Seyde nee na defet yi mu daan am yëpp nit ñi dañ ko si mystique lañ ko doon jaare mais affaire mystique léegi yeewu na ci bi mu paree Aliou Seyde tontu ko ne ko yow laay jàngal bëre te da nga def mauvais choix nga toog huit ans mënoon nga xool beneen adversaire nga ñëw ci mais pa te bàyyi ma fi wax na ko également ci affaire mystique bi nee na bu dee combat bi mystique la ci yaakaar pour gagner mu ngi dóor loxoom ceeb. comme combat buy neex la dana doon Alioune Seye dafa bëgg a yéeg Issa Pouye dafa bëgg a dékkiwaat ci làmb mhm. ca noonu nag journal suñu làmb dafa delluwaat ak ki nga xam te ne mooy Balla Gaye numéro 2 wooy ba Tyson nag naan sport business laay def maanaam moom sport utu ci titre xaalis la ci ut kii di Balla Gaye numéro 2 nekk Tyson mooy idoolam kon tey jii Balla Gaye mu ngi topp tànk ki nga xam te ne mooy Tyson mu mel ni euh, Balla Gaye euh, dafa xaw a nuroo ak Tyson doxalin mhm. wax nga ko sànq Tyson moo doon wax euh, sport business moom booy xool euh, carrière am xoolul woon titre yu bu titre yu noonu moom daal na ay poosam fees rek mu mën a investir Balla Gaye tamit euh, mu mel ni yoon boobu la jël Aziz Ndiaye yëkkati kàddoom ne euh, il pour ñu am pour ñu investir il faut ñu am xaalis bu bari asam dëgg la Mbaye Babacar comme ni nga ko waxee Tyson moo doon yëkkati kàddu yooyu ne da doon def euh, sport business te titre yi intéressé ko woon intéressé wu ko woon loolu nag dañu gis ne instant yi ci tànk yooyu la Balla Gaye euh, la Balla gay nekk ndax Balla gay dafa euh, signé trois contrats deux yi deux contrats yi mi ngi war a jàkkaarloo ko Bombardier ak Boy Niang 2 troisième contrat bi xamagun adversaire bi kan la loolu nag lu tax mu def ko mooy que ne day préparer reconversion maanaam bu arrêté bëre lan lay def Aziz Ndiaye nga xam ne nii moom mooy agent Boyle euh, nee na lu sax muy justifier trois contrats yooyu nee na après li doy euh, Balla Gaye day investir ci affaire immobilier ak euh, agriculture te mm-hmm. foofu da ngay soxla xaalis bu bëri looloo tax mu signé trois contrats yi comme ni nga ko waxee également Tyson da doon wax ay titre roi des arènes dem na benn à moment donné intéressé wu ko looloo mm-hmm. taxoon muy def gros cachet yi te gis na ne Balla Gaye instant bi ni ci tànk yooyu la nekk mu ngi noonu nag ginnaaw 4 avril ba mu cee ci cadre mooy le conducteur di Waalo Eumeu Sène daal di def recours Mbaye Babacar ba mu defee recours nag waa CNG gàntal nañ recours boobu Mbaye dafa mel ni dañ ko koo bañal gannaaw euh, ba mu bindee li nga xamante ne bii moom mooy recours de déposé ko foofu ci CNG euh, ngir bëgg quatrième avertissement bi ñu ko joxoon ñu annulé ko euh, CNG dafa bañ recours boobu nga xamante ne bii Eumeu Sène dugal lan na ko ba pare nag Assane dëggalaat li nga xamante ne bii moom mooy victoire Lac de Guiers 2. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi ko Lac de Guiers daane ci ay avertissement euh, moo am 4 avertissement Lac de Guiers am 3 Eumeu Sène le lendemain dafa dugal benn recours pour annuler quatrième euh, avertissement bi démb nag waa CNG def nañ benn réunion commission règlement euh, discipline règlement yi discipline ñoom ñoo réunir ban réunir dañu gàntal recours Eumeu Sène boobu ba pare confirmer victoire Lac de Guiers 2 ci kaw Eumeu Sène. Mhm. ca doon nag suñu papa Kati Diop moom mi jiite écurie Ndakaaru ak Fass la may xamle ci journal bi nag mooy seen défi mooy ñu jiite écurie yépp yu ci Sénégal Mbaye Babacar Amadou Kati moom mi nga xamante ne bii mooy tàggat écurie Fass ak écurie Ndakaaru gannaaw bañ leen fusionné ñu doon benn moo yëkkati yooyu la kàddu nee na nee na bëgg-bëggam ci làmb mooy seen écurie boobu di écurie Fass ak Ndakaaru Ndeye Mbacke écurie Fass ak Ndakaaru jiitu ci écurie yi nekk ci Sénégal yépp dëgg la Mbaye Babacar Kati Diop moom mooy coach principale bu euh, écurie bu bees bi ñu tuddee ko Fass Ndakaaru moom nag euh, keroog bi ñuy def entraînement suñu làmb daf ko jox kàddu nee ne moom seen objectif bi moom mooy ñu devenir la la première écurie du Sénégal maanaam écurie yi nekk ci Sénégal yëpp euh, Fass Ndakaaru nekk ci kanam waaye àdduna également le fait que euh, ay poulain am ancien poulain am yu nekkoon Ndakaaru jógee Dakar au que ñu dem Dakar Fass Ndakaaru ñu dem kolobaan nee na loolu nag regretté wu ko ndax depuis deux ans moom mi ngi formé ay lutteurs wax na également ci anti mi nga xam ne ni Ndakaaru nekkoon koy xaar instant yi dafa nekk ci ay situation mais bu paree rek waa Fass Ndakaaru ñu koy xaar pour mu mën a intégrer écrit boobu. jërëjëf ca noonu nag Pape Mbaye numéro 2 depuis Espagne. lam xam ne ci journal bi nag mooy combat ki biy dox ci digganteem ak Zarko ak Mambalu numéro 2 moom la promoteur yi di démarché lam ci yàqante nag mooy combat ba mu daal di ñëw béggal ay amateur Mbaye Babacar waaw Pape Mbaye 2 yëkkate yooyu la kàddu ci Espagne mu nekk la toll yëkkate yooyu kàddu nee na am na promoteur buy dox digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, moom mooy euh, Zarko ak euh, Mambal 2 mu nekk ñaari adversaire ya nga xam ne nee na bu ci ñëw rek mu jàkkaarloo ak moom bëre ak moom. dëgg la Mbaye Babacar Pape Mbaye 2 ñu gënoon ko xam ci écurie moor Fadam. moom nag instant bi mi ngi Espagne waaye dafa euh, séq waxtaan ak euh, journal suñu làmb mais lu fa xam ne mooy benn promoteur bu mu tuddul turam mi ngi euh, démarché combat am contre Jarko ak Mame Balla nee na moom nag mi ngi Espagne waaye tëddul du nelaw mi ngi entraîné bu baax a baax a baax te moom pare na pour rentrer au Sénégal uniquement bu dee am na adversaire boo xam ne ni bi jox na ko ko. la muy affiché nag mooy ay ambition am ginnaaw ba mu lancé combat bi passé découragé wul benn yoon la muy xam ne ci journal nag mooy li mu bëgg mooy jëlaat place am ci arène bi Mbaye Babacar dafa xëy fësal li nga xamante ne bii mooy bëgg-bëggam gannaaw ba ko Ousmane Gandi Gall daane Safi Dieng nee na li mu bëgg mooy jëlaat li nga xamante ne bii mooy place am bi mu amoon ci làmb ji ba ñëpp ràññee ko mu nekk mbër ma nga xamante ne bii mbër mu ñëpp di bàyyi xel lay doon dëgg la Mbaye Babacar le 10 euh, avril bi passé la ko Ousmane Gandigal daane foofu ci Thiès waaye nag ginnaaw bi ñu ko daane moom nee ne en tout cas combat bi lim ci waroon def yëpp def na ko préparation et tout lépp defoon na ko léegi nag li des ci kanamam moom mooy mu reprendre place bi nga xam ne nii perte na ko ci arène bi looloo tax mi ngi préparé bu baax mais euh, euh, pour prochain adversaire am bi nee na du cité kenn en tout cas moom képp ko xam ne nii bokk nga ci catégorie rek moom pare na pour jëflante yow. ci noonu nag journal bi dafa dellu siwaat ci combat royal bi nar a dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé nee na seen grand défi bi ñu war a amal ñoom ñaar ku ci nekk mooy dalal seen i supporters ndax combat bi bëri na tension lool te bu seen i supporters dalul ay njaaxum dina fi am mbay Babacar. waaw suñu làmb moo xëy def boobu dànkaafu dànkaafu ko ñaari mbër yi nee na leen li nga xamante ne bii loolu ngeen war a njëkk a def li war a njëkk a nekk seen premier défi mooy ku ci nekk. dem wàcc ci base bi waxtaan ak say supporters ndax gis nañ li xew barke démb ci première face à face bi ñu doon amal kenn rafetluwu ko moo tax journal bi ne leen dem leen sensibiliser seeni euh, supporters xamal leen ne làmb fola ak ree te lu mën di xew ci combat bi ndam li mënul génn réew mi Assane. dëgg la Mbaye Babacar journal suñu làmb moo génn foofu nee na premier défi Modou Lo ak Ama Baldé moom moo ñu calmer seen supporter lu tax nag mu wax loolu ndax dimanche bu lay passé dañu gis euh, arène nationale benn combat bu fa amoon supporter yi nekk ci kaw di yàq siège yi ñooñu ay mbër yu ndaw lan waxumala nag euh, supporter yi nga xam ne nii ñoo ñooy topp Modou Lo wala Ama Baldé. loolu tax daal demben na journal bi ne ñoom war nañu dem waxtaan ak seen supporter calmer leen pour que le ku am défaite nga a euh, ñibbi ci sport noonu la da ngay daane wala nga daanu wala nga jëlee fa match nul. ñett yooyu moo am ci sport lu mënul ñàkk la Ndeye Mbacke mooy dem yóbbaale ñett yëpp. te noonu nag dañuy dem journal record recomposition chez les VIP Balla Gaye numéro 2 et Modou Lo ku ci nekk am nga combat. Mhm. kii di Eumeu Sène Gris Bordeaux ak B52 ñoom nag dañuy am jaaxle ci ñoom ndax. kenn ci ñoom ubbilulu xale yi buntu Balla Gaye numéro de may na Boy Niang sens daal di koy ubbil buntu mu yéeg mhm. kii di Modou Lo may na ki nga xam te ni mooy Ama Baldé sens daal di koy ubbil li nga xam te ni mooy porte roi des arènes mhm. ne ko ñëwoon ñu bëre mhm. teg couronne bi ko daan daal di jël ko daan yóbbu waaw kay na VIP yi VIP yi buntu bi rek xale yi daal di yéeg may bal waaw nañu bàyyi làmb ji nga xamante ne bi te bi dañ koo cadré ci juróomi mbër muy wër ci seen seen seen seen seen biir ñoom juróom ñooñu rek nañ ko yaatal ba may xale yi ñoom tamit ñu bëri si tey record dafa ne Euh, li mu gis ci VIP yi mooy mu Modou Lo ak Balla Gaye mën naa wax ne rëcc nañu wante ñi nga xamante ne bii ba léegi ñoo rëccul ñoo des ci mbaal gi mooy ki nga xamante ne mooy Gris Bordeaux Eumeu Sène ak Lac de Guiers ñoom ñooñu ba léegi seeni mbir a ngi jeexi jaax dëgg la Mbaye Babacar euh, Abou Ndour mi nga xam ne ni moo nekk journal record moo gisee noonu nee ne recomposition chez les VIP Balla et Modou Lô sauvé euh, souci pour Gris Eumeu euh, ba B52 et Lac 2 lu tax mu wax loolu nag mooy que ne Balla Gaye jël nangu naa jël Boy Niang 2 may ko chance pour que mu mën a atteindre VIP bu baax a baax a baax kii di Modou Lô également may na chance Ama pour mu mën a décrocher couronne roi des arènes léegi nag ñi ci des mooy kii di Gris Bordeaux war na may ndaw ñi chance Eumeu également war na gestu ñu nekk ci ginnaawam bombër de même que Lac 2 ñoom war nañu gestu euh, ñi nga xam ne ni ñoo nekk seen ginnaaw te war a euh, yootu couronne bi ëllëg. mooy noonu nag Assane maa ngi lay jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaar yi mbay looy tàggatoo wee xanaa jaajëfal ñëpp dig leen daje incha allah bu ci yàlla àndee euh, suba ak jàmm di jaajëfalaat bu baax sama xarit bi Cheikh Ahmed Tidiane Kebe moom mi nga xamante ne bii tey moom a génnee ci mbaxane bii nga xam ne tey damaa xëy si rek bureau bi yëpp jóg taxaw di apprécier di joxe loxo kontaan naa ci moom Cheikh Ahmad Tidiane Kébé Kébé Jaxara yàlla na si jàmm yàgg borom Kër Massar. Assane Waalo. Ndeye Mbacke fay naa kii la maa ngi lay remercier di remercier Mbaye Babacar di remercier internetu Leewtoo TV di remercier waa Linguère sama dëkk di remercier Yacine Fall mi absenté tey di leen jox dig daje suba ak jàmm incha allah wala lundi incha allah. suba ak jàmm Assane tey la vendredi wala da ngaa bëgg a dem Linguère koor gee la jàpp lii gàcce rek nga ma mën a teg mu ngi noonu nag di leen bu baax yéen suñu internet kontaan ci yéen bu baax du ma dem nag te du ma sama caméra woman bi Fama bégg naa la bu baax Bamba Bilal kontaan naa ci yow trop di kontaan ñi ma feggaloon ci revue bi Mbaye Babacar sama lonko Assane Waaro borom Linguère Kébé maa ngi lay bëgg bu baax moom moom sama chauffeur bi nee naa loolu dawal léegi bëgguma kontaan naa ci yow a Josare